salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngi nuyu bokk yëpp bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi di bëgg am ay waxtaan yu ñuy wax ak mag ñu baax ñoo xam ne ay mag yu baax a leen yaroon ñu bëgg a jël ci ñoom ay kàddu def ko souvenir muy dénkaane yoo xam ne. baax na ci génération bi jamonanteel tey jii kii ci sama càmmoñ mooy soxna may mun a ñan doon taalibe sëñ Murtada bokkoon ci ay dëkkandoom hmm. ku xam soxna sooda ci sama kër mooy wajurum soxna may bu sami di sama mag ndax ñoo bokk ndey soxna Xadi Buso waajuram di doomi sëñ Mbàkke kenn mi doon ni yaay si Abdul Xaadir ak soxna May Mbàkke ñoom ñaar ñi bokkoon ci njabootu sëriñ Seex May mu baax ma mu mel nag ñoom ñii soxna May di leen a yar ñoo xam ci soxna May lu bari soxna May Kubra waaye xam ci soxna Aminta Buso waajur si Abdul Xaadir lu bari ma bëggoon nag jële ci ñu wér ñu jëlee ca ñooñee loo xam ne te yi dañ ci mën a jariñu kon soxna May maa ngi lay laaj kañ nga ñëw ci loxol soxna May ak loo xam ci soxna Aminata Bousso. fukki fan ak fukki mm. ñëw ci soxna May. ci soxna mm. soxna May moom dama fa daan dama fa rek waxtu wala dama fa daan nekk Daaru Salaam. moom laa neeroon jamono yi ma war a dikk kër sëñ Murtala xam nga am naa ko ñaari at mutuma egsi waaye bi ma ñëwee kër sëñ Murtala ah bi ma ciy waaj sëñ bi ne naa ñëw dafa woo Awa Demba mu ñëw mu ne naa bëgg may mi ah, fi muy jaar nga fanaan fi ay fani fan ndax sëñ Moussa dana day dem ci kër yi te ma bëgg fu muy aw nga mën faa jaar. kon 54 lay doon li nga wax 54 lay tolloon. waaw waaye léegi soxna Aminta la la sa baay jébbal moom la la joxoon. soxna May. soxna May waaw. Daaru Salaam laa daa jógee. di hmm. ànd ak soxna si ñëw Touba. ba gannaaw bi nag sama mu ne sama yaay may day benn doom ma bëgg amee fii weer. bu amee weer fiyow am yetti weer fi man sama yaay ne ko laa ilaaha illallaah man kay mbàkke jébbale naa sama wàll ndax may mi man di fuluma dara ndax xam nga ne ana kii lu ma war a mën di ree daal ko kon nag baax loolu nag moo tax ma féete woon fa moom rek waaw soxna mit la wax dëgg yàlla daanaka mooma yow rek ndax man bi may ñëw ci loxoom it maanaam sama mbur moo ko lakk bis bi ma wàccee it sama baay daf ne sama yaay na nga ko fa te ñibbisi àjjuma mm-hmm. ji ma wàccee maag soxna moomeem du ñoo bokk benn bis bu ñu mm-hmm. sama yaay dafa daal di xëy daal di ñibbi wàcc mag mm-hmm. maaminta léegi nag soxna si daal ne soxna si daal ne daal ne soxna ma ko ba ci kanam ndax kii neexagut a yóbbu ci daara bi ma téye nag ba ma xàmmi tuuti la ma door a yóbbu ca daara waaye nag daanaka bi may nekk fii bi ma indi fii fukki at ak ñett dong laa am. Mhm. ne moom daanaka xaw ma ci dara nag moom. Mhm. li ca xam moom bëriwut. <laughs> ci ci soxna May. Ah, waaw soxna Aminta mhm. <laughs> daanaka benn lañu woon rek ndax moom dañ daan ñëw fii di dem foofa rek. dañ daan def buñ dikkee fii tey bu ëllëgee dem fee. fàttali nga ci moom mm, <laughs> di wax dëgg yàlla moom daanaka. dama fee teel a jóge daal damaa teel a jóge ci moom mhm. damaa teel a jóge ci moom damaa teel a joxe moom ci boppam damaa teel a jox sëñ bi daal moo tax waaw boobu fukki at ak ñett rek la am matu ko sax boobu mhm, moo tax daanaka xam naa yoonu Poroxaan wi nag moom ñoo ko àndoon ak naawel yoon moom doon dem Poroxaan ak naawel boobu moom ñëwaguma fii waaw boobu moom ñoo àndoon moom maa ngi moom ak Poroxaan la njëkki mujj naa wér soxna si ci boppam moom daal sëñ Fallou digg moom moom la war dox da koy dox ci moom dégg a ah sëñ Ibra Mbacke maa ngi fàttaliku bu nekkee ci wéradi gi nee na ma may ñëwoon dem damay seetu sëñ Ibra boo xam ngi mi ngi ci kër sëñ Laat gi mm. sëñ Sadio boo foofu la waaw léegi moom xam nga booba man gisuma ko ba tey mm-hmm. sëñ Ibra mm-hmm. sëñ Abdoulaye mm-hmm. moom it xaritam dégg nga ah sëñ Mourtala mi moom yi dafiy ñëw man daal faral mënuma ko lim ndax gisuma ah kooku moom laay bëgg a ñëw man kooku laay bëgg a eh, waaye xam nga li ma gën a ñor ci waxtaan wi waaw mooy lépp lu ngeen mas a dégg ci soxna si. waaw tam net lu koy sëñ Tuubaa. waaw wala soxna amati net lu ci ni njaa jàngale sëñ béeg daa ji yeeg ci biir kër gi. waaw lu mën a doon rek. waaw daa ji gën a gën a soxla. daa ji li li ci ñëw mooy ah man de lu ma jékki-jékki woon mooy booba xam nga soxna si day jóge Daaru Salaam di fi ami fan. Hmm. léegi nag mu toog ba mu yàgg mu may jàng nga bar seen jéego. xam nga ñii sax dama leen daa jàngaloo. Mm-hmm. ma di leen jàngal. Mm-hmm. jàng barsan jiw yo ma ko barsan jiw di jàng bu mm-hmm. mu ne ma dama ko war a wecc ko de ndax yow da neex baat. nga di ko jàng ah Aïcha bisimilah. mu ne ma ni ma wax la ci yaari bayit nga daaj ko ba xam. daal di wax moo njëkk yónnee nii moo leen mujj moo ko jagoo. ma daal di wax. mooy maami Adama maamam wóor na yàlla. daaj na ko wala da wax noonu rek. da man la bëgg ma daaj ko. waaw ah, njëkk yónnee moom. Hmm. lan mu moom ko jago. Hmm. mooy maami Adama maamam wóor na yàlla. Hmm. mun ma ko yëkkati. Ah, dégg mu ne waxal mooy yónnee nu képp nit. gëm leen ko moo ko jagoo. ma daal di wax. Mm-hmm. mu ne ma malaayika ak jinne moo leen saytu yàlla woo. Mm-hmm. ma daal di wax. Mm-hmm. daaj. daal di ne gisal daaj bi dafa neex lool kaar. dégg mu daal di ma koy wecc ko bu ma yegsee ci yàlla ñu ay doom yu ànd kii sax bi jaay yi wa bi jaay yi ne yàlla ñu ne ah léegi moom bàyyi na nag yeggal na nag wàcc boo de waaye soxna si moom. bu may koy jàng ñu may aw noonu mhm. day mujj aalo rek day daal di jël parfum bi rek tiim ma sotti sotti sotti sotti ñi awu ah moom moom la jëkk di def ci jàng mu ma jàngaloo mhm. gannaaw bi nag mhm. la tàmbali kii bi ci weeru koor bi la ma jëkk-jëkk yónnee nee nee na ma nga kaw la naa ko jàng ba ñëw boobu oh, maa ngi fii ci kër bi mm-hmm. mu ñëw waaw. boo mm-hmm. ñëwee nag te bu mokkale na jox waa kër ndey mm-hmm. su ma ñëwee ñu aw ko ko. ma daal di defee na mu waxe mu daal di cay jógee ci def weeru gàmmu bi daal di neel may na ko gàttu jàng te mokkale na ko daal di jox waa kër ndey su ma ñëwee da koy dañ koy koy aw mu jëfe ko lam wax mu daal di defaat taalif yi def ci Maymunatu bintu Xadim boobu moom dafa toog fi ñuy ñu añe ba noppi mm-hmm. ci néeg Maawintu mu wëlbatikuwul sax foofu moom wëlbatikuwul sax ndeke moom mi ngi woy mm-hmm. mi ngi taalif booba Maymunatu bintu Xadim mm-hmm. bi mu noppee takkusaan jot ñu julli mu daal ne may ñëwoon dem mu baariku. ñëwoon dem mu baariku. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. boobu benn pant bi nga xam ne moom lañ fi jëkk a def. Mm-hmm. boobu moo fa ne. guñ dëkk bi waaye boobu la ñuy bëgg a dëkk bi. bañ demee ma daf ko ba ci yoon mu ne ma wàññi ko dem ne moom bi suuf si nag segg kafe indi. ma wàññi ko wax ko ko daal dikk dabaat ko. bi ñëwee. mu daal di ne ma dindi kayit si jox ma xam nga béy daal na may seetal lii boo loo ko war a daaje mu hmm. daal koo xool ba mu yàgg ba nag di saa jël xanaa eh, gis bu lañ ko war a daaje hmm. daal ci man may jaaxal ba rek daal jaaxal nga ba bi ci des itam bi mu mujj way di bi bàyyi bisimilah yaa rahmaan hmm. dama woo ba mu ñëw ci néeg kër maam Inta ma jóge ci kër gi mun a may maanaam mun a may ñaan gii de dama koy bëgg a naa bëgg a jàng ko waaye daa bokk te genn ko ah waaye dangaa war a néeg màggal gi jege na teg ko fi bu ñu màggal ko ah man daan xam ne kaamil laa ca def ma wax nga dëgg bay ci ñaanal ndax dama koy def ñetti bayit ñetti bayit ba ko mu daal ni ma ah may ñàkkul luñ la ci defal de. daal di ree dégg nga bi ma ñëwee ba def ko ba mu egg ndeke mi ngi waaj koso ndeke bu biir mu mujj mujj la jàng wa wala bi ma ñëwee mu daal na ah da ngaa ñëw man ko waaw ak takkusaan nii soxna Mbaytu ñoom ma ngi toog mu ne mokkal nga ma ne ko mokkal nga te mokkal nga ma ne mokkal naa xol boog xol ma daal di daal di xam nga bisimilah rahmaani rahiim bisimilah moom la ko tënkee. bisimilah bis basirullah. wa maa tawfiiqi illaa billaah. daal di ne bibaay bisimilah yaa rahmaan yaa rahiim bari yaa dayaam noo ngi dagaante bi sax ramalaan yàlla yërëm nu kenn mën a daan. te mu saxaar ci siraatul mustaqiim ni jaamu rabbul xarsi daayimun mudiim tam dëgëral tawxiid yi xusnal xaatima nañ ko may faaw bi jaayi fatima tam dëgëral tawxiid yi waaw mhm. saar siyaam yi la ñu wàcc ci alquran mhm. ci war di jàng saari alquran mhm. nan yeesalaan njébal gi ngir Seex Bamba fii saa yëri bu baatin yaaram ba te teralal ko weer wi màggalal ko ko ci suñ yitte bu wër waral ko ko nañu safoo la ko safan tey bëgg la mu bëggan te sax ci lii mooy dëgg daa sëddal weer wi xasaayit jàngal danaa ko bind fii murit bii déglu daal di fa faase la seeni dugal ci biir dégg waaw kenn tegu ci lenn moom li def ci gàmm nag gàmm hmm. bisimilah yi boobu itam hmm. moom laa mooy bopp kaw lax bi dé moo toppanti bopp kaw bi ma yónnee woon Eh, mooy bisimilah rahmaani rahiim moom it bisimilahi bisimilahi bisimilahi wa maa tawfiiqi illaa billah moom itam dafa wax ne bisimilahi waxal alhamdulilahi fii sahri mawlidil muxtaar yàllaaw barkeel woon nanu fii sahri saami defal ka ay bayit ngir borom Tuuba fayal laaw te sëddaloon nanu koy wayu ngir di taasu ci moom nan teer gàmmu ànd ak yàllaaw te yaari weer yi borom Touba bigën na ci ñoom ba tax nag kuy wut bigë mooy leen fayal laaw nan leen teeru di leen sargal di leen gërëmal si abam mi dinu teexan lallaayi nan leen di ndokkeel di leen neexal di sagg di di way Cheikh Bam mi waaw nan leen di ndokkeel di leen neexal di tagg di way tey sant cant biir Cheikh Bam bi yàlla boobu moom itam boobu moom it mu ngi ba egsi ah bi mu waxee ne xam suñu ba xam soxna foofu it jox na ma fi kii boobu moom ci Daaru Salaam maa ngi soxna benn soxna ñuy dëggee nii mu ne may taxawal ñu mu tëdd nii mu ne taxawal tuuti ma sëgg mu ne ma dama waxal xam suñu ba xam soxna waaye waxal ci tuñu ba xam soxna tolloo nag biir yi bu wér ci mujj gi si tuñu ba xam soxna tolloo nag yàlla nañ nangul xasaayit gi illallah. incha soxna Aminta loo mës a dégg ci moom lu mu la wax ci sëñ bi lu mu nettali ci sëñ bi dara. boo bu fajaree. da daal dégg mu dox ak dàll bi. daal di daal di sumbi dàll bi ku ne lootiku ñëpp kenn kenn ñëpp jóg julli waaw kooku moom sëñ bi daanaka. soxna Aminatu Bousso waajur si Abdul Xaadir lay nettali. waaw meloon ci jaamu yàlla ak ni daa yare ak njabootam ci teel a jóg julli. waaw bisimilah. nga xam ne bu ko defee. kenn ku ne boo déggee rek mu ne un um, un um rek. Mhm. jóg nga. Mhm. dégg nga. Mhm. ah bu ko defee. waxtu yu juróom. ñun ñëpp julli. kenn du ñeme manqué. dégg waaye man ci sama bopp. man li ma ci xam ci moom moom day royatif man daw ma gis muy jekki di waxtaan nii di waxtaan nii di waxtaan waaye ay definam da nga ko jéngu daanaka lu topp ci moom rek te ba fii toog nañ ciy sant sëñ Tuubaa njël la ni jóg waaj dem ci jàkkee ji ma sëñ mosuwaa jox waaw ma ne masaa gis ji nii ji nii ci photo bi nañ ko gisee day muuru day muur muuru ba kanam gi rek ngay gis. waaw noonu la bindoo woon. noonu la bindoo woon waaye moom ñii rek mëlifal hmm. wax lool. waaw li ma la jekk nii wax ay wax bi nee lii ak daal mën naa laa wax. Hmm. demal naa fa. Hmm. may mu ne ma ne ko mu ne xam nga ne sëñ bi. ah jox kees gën war a jàngee mm-hmm. waaye njàng mi ñu jàng defal na leen fattuut di jàggante fattuut mm-hmm. waa jiw sëñ Murtala mm-hmm. mais danu na leen di gàggante dégg dafa am bis nag ñuy jàng di jàng bakaanaa xan waaw dañuy jàng ba mu yàgg mu dikk daal tolloog noonu ne jàng leen wakaanaa xan jàng leen wakaanaa xan ñee ñu daal di fab wakaanaa xan nee ñu jàng ko bon yeggale nee mu daal di eh, waa jooju dafa ne woon dafiy ñëw ah nee mun fee bañ a dugg tey dafa tegale nag xotti leget ba sa bët yem def genn wet ben tànk benn nopp benn loxo waaye ba mu ñëwee ba taxaw bi ngeen jàngee wakkanaa xam nee na ba ca géej ga foofu soxna see ma ko nettali boppam waaw mm-hmm. maam xëy penda yi ne ma mm-hmm. may moon a wala sa sooda mii laa àndal mm-hmm. ñu yànd fa muy dem sax dafa jóg ne jóg leen gungeel ma waa kër sëñ Tuubaa yi sama gan ñi maa ngi day sooda kat ay nga la ñun de cey lii ñëpp jóg dégg nga moom itam dama toog mu ne may moon a man a demal ca néeg roq ya bee laa la euh, yantal yaag Soda ma ne waaw. Mm-hmm. moo toogee ba tusbaar mu ñëw ne mbaa léegi euh, nañ la tàngal attaay mm-hmm. fi ñu tàngal attaay may mun a kaay mm-hmm. ma dikk ba ci buntu bi bopp lal bi wala ma sumikul yit ma sama rob boobee ca batan ba màkk la jóge woon te sol naa ko dugg sama yaram lu ñu indi mu ne ma sol ko defal naa ko muy si mun kulli daa defal naa ko si faw mun kulli daa dégg nga daal ne ma nag may moon de xam nga ne sëñ bi eh, daf ne woon dana joxoon eh, lii nga xam ne moom lañ daa yóbbu mu di ko jëfandikoo ah am ci ndigal daal ci di ko muy dem xamama ko dikk waaye dafa am bis mu li ngeen di wax na leen de leen ko wax ci ndab li lan moo ko nettali waaye ndab loolee kat sañ soome bu kan moo ma nax ba denc ana ndab loolee ana ndab li xamal naa ko de super maa ngi mën billaa xamal naa ko waaye maa mën a wut ma it man man la maa ce ah, loolu mu yox loolu mu yox loolu mu yox lu yéeme la soxna ak soxna Marema si mi leen daa boole ci lu bari bi njëriñ xatee ba xat ku ci am soxla suñ bi daan ndab yi ngeen di yebal ci man bu ngeen amatee soxla wax leen ko jërul ngeen di ko wax bëkk néegi sax nga xam ne ñoom bu ndab yi dem rek dañuy yónni ndab yi tudd li ñu tudd def li ci wala ñu yéene ci bu ñu àggee suñ bi yónni leen loolu wala mu tontu leen ci loolu lay wax nii son xarit nekk na super boobee suñu sama bi la ko jox nee na mu ne nag ñi nodd nag may wax sama yitt di wax sama yitt mm-hmm. ma ne ko sañ bi danga maa dégguta nee na nee na waaw. mu ne càll ne dënd ma ne ko ma sëñ bi danga maa déggu te moo ne man day wax na sama ba saay waaye danga maa dama gis rek waxo tontoo gooma mu ne ko xëri xanaa danga xamul ne bu ñu nodd ngay wax day waral sukuraat su metti day waral sukuraat su metti mm-hmm. ay mbàkkeetaay moo ko waxoon mu ne ko la ko waxoon wax léegi li mu wax lu solo la ngir mu gën la sama xarit nee na ko damaa toog sëñ bi ñuy noddu ma di ko wax samay soxla ay yoon sëñ bi tontu man de Mbàkke maa ngi wax rek waaye tontu ma dara ba nodd gi daanoo nag sëñ bi xam ne xarit xamoo ne ñuy nodd ngay wax day yàggal sukuraat mu ne ko teewoon nga ma ko wax mu ne ko ma la waxoon wax waaw lu solo la lu mat a bàyyi xel. xamee ni keroog ba nga xamee ni mat na ma affaire sama yaay nee na. sama baay daa wax sama yaay ni ko nga dem laaj soxna si ba xam bu subaa dana mën a wàccam déet sama yaay nee na soxna roqee caam la sama yaay tudd bi nga xamee ni eh, sama yaay ñëw na wax ko ko mu ne ko bu subaa de mën naa wàcc dana rafet bi ma xamee ni eh, wàcce na ba noppi bi may ñëw bi may ñëw sama baay da ko ni boo demee ni ko boo demee bu ko fa bu ko ëndaale nee ko jox naa ko ko nee ko jox naa ko ko ne waaw nee bi ma wàccee ba noppi mu daal ne ma boo demee nga koy daal toggal nee ma ne ka ah, man kat sëñ kat nee na ma woon boo demee bu ko indaale waat jox naa ko ko mu ne cay akarib daanu kat waaye bu suba yow dénk naa la ko ba keram a koy jël si loo ci def rek mën nga ko defal sama yaay nee na mu daal di may delloo si ca kër gi ba ma amee juróom-ñaari at nag la ma jël si ma ñëw ci kër gi ma ñëw mu daal di may jox ma yore ba ma fi amee ay fan la tasanteeg tabaxam bii ñu kii tey ba mu a nekk. tabax bii mu nekk nga xam ne moom la sañ aboo defaraat eh, bi ma fa amee fan lañ ko sanc ne mu ne ko boo mu daal mu daal ma demal xam nga sa kër baay ma ne ko waaw mu ne ma boo demee nga wax ko ba xam ne ko sëñ bi nee nag mu andi caay bi ñu sanc kii tabax bi. biñ ko sancee ba noppi nag la ànd ak man yéen ma soxna Aminta Bousso nga xam ne moom digganteem ak sëñ Fallou xam nga sëñ Fallou de bu koor masaa am ndogu li muy njëkk a dogoo maamintu ba moo ko daa toggal xam ni boo xamee ni eh, bu xëyee natt ñaari kilo jox la ñu bokk soq daal di def ci kilo ceeb ñu kii dañuy sëlmal fajar dañuy sëlmal tusbaar door koo door koo wal nga xam ne bu walee bu ñu ba noppi eh, su jullee tusbaar ba noppi daal di araw moo koy arawal boppam de waaw soxna Aminta Bousso mooy araw def yëpp daal ba arrêté ba noppi waaw bu ñu ba takk ba tàkku waa ndogalu sëñ Fallou ko daan toggloo mm-hmm. bis bi muy euh, ko daa doge mm-hmm. xam buñ kiyee ba noppi nag mm-hmm. buñ buñ noppee mu daal mooy araw mooy arawal boppam bu jullee tàkk bu ko defee yow mi nga aayo yaay dem raxas ci ndi daal di daal di ci teg su jullee ba noppi te santee mu baax moo ñëw laax mooy laax atay kii ba mu ñor mooy ñëw yàq eh, séddale hmm. daal la yan nga yóbbu kër sëñ ki aay mooy yanu yóbbu kër sëñ Fallou voilà hmm. hmm. xam naa ko ci sëñ moom mu ko daal di sooy bi nag man bi may gone sax maa defe ne ñoo bokk waajur jigéen moom moog soxna May daa ànd ak moom di fa nekk lu yàgg nga xam masaa ñëw am na kees goo xam ni mu ngi ci defe naa euh, néegu ñax bi ci ak daqaar ca nekkoon ci kii ci xam ne bu bu soxna may bu këyee dañu ne yabal ci yaa moom yi ñu dem leen féete ci sa yaa moom bi may dem bu ñëwee booba soxna moo moomi fay mii ci ne fa nekkoon ak maam bu sa gajaga waaw nga xam ne booba ñu ngi roote booba kër suñ soxna bu booba amagutub robinet sax ñu ngi roote ci euh, pencum daaru minam mi ta seetar bu nekkoon pencum daaru minam bu njëlee ñu ànd ak ñoom wal kii moom dañ fa daa yàgg lool sax mm-hmm. bi soxna may dem nag di door a kii bi nga xamee ne li ci mujj it mm-hmm. bi nga xamee ni soxna may wéradi na mm-hmm. ba nekk fii bi mu demagut hôpital soxna Awa Touré moo daa tëdd moom di ko bës waaye soxna Awa xam nga sëñ ndaam mbar moo yoroon yaayam mu demoon mbar nag seet yaayam moo tax euh, fan yooyu fekku ko fa waaye guddi gu jot sëñ sooy bu demee bu guddi ba guddi gis kii sëñ sooy bi day ñëw ànd ak Jongo waaye Ahmadou Jongo bu mm. mu toog ci bunt bi mu daal di ne koŋ koŋ bu ubbee mu ne ma ubbi mm. fekk boobu maag soxna Toora fi fanaan ci néeg bi mm. ak maam Aminta maam Roqaya Buso maam Daba Buso ñooy ñooy ci néeg bi bu ko defee ma jóg ubbi nga xam naa am na guddi goo xam ne bu ñëwee ma ne ko billaay sa tànk yii de ni ma mettee ndax fa sa kër ga nekk ak guddi gii ngay dox ba nëgëni nga nga jóge fa ba kii di ñëw fii mu ne ko laay man de soxna si fii mu ne bi sa su jant fenkee damay yàkkamti waxtu wi fi fii ñëw jot dama ma ñëw ba gis la ngay fas naa yéene waxtu ba ñëw noonu lay def ba ni sëñ bi soxna si demee hôpital bi soxna si ab demee hôpital guddi gu mu ñëw soxna Faati Jaay moom dikkee Daaru Salaam mm-hmm. euh, xam nga ci këram googee boobu la koy soog sama bàjjan ne ma may tey de dañuy bëgg a dem Touba hmm. ma ko waaw soxna xarit Penda nag la laa def bu ba jàng jukki bi rek moom hmm. faaw rek bu noppee rek dem na siyaar ji ko soog a ji hmm. bu ndékki bu ndékki rek ñu ngi ci liggéeyal sëñ eh, Modou Mamoun añ bi waaye fii ñu bëgg a dem moom dana ma may ma ne baaki soxna Fatou Diarra dane dama koy gunge kër soxna moo ñi ndax dafa yenn ji ñun nan dem boog bala maa yàkkamte mm-hmm. ban demee mm-hmm. ñu dugg ba dem egg mm-hmm. bañ demee yendu fa ba ngoon mook soxna si ak soxna si ba jot ñu indi oto boo xam ne mbaar mbaar bii lay nuru ñu dugg ci kanam ñu dem ba toll ak altu Daaru Salaam sëfur ba sama bàjj na ko ah teg ñu euh, far yeggale fee maanaam kilifa gi ñu ànd mu daal di waxaat leneen ni rek nangam nangam wàcc dégg fa ñu wàcce ba dem dox ndànk di dox ba nu yegg Daaru Salaam oto boobee suba gu jot ñu ñu ñu ne ana oto ba ñee ma taxaw ba bis bu dee si comme taxaw jugu oto moom ko wàcce woon. Ah, waaw a tàkkaat. dara. doo bis ba di. foofu foofu kay waaw. Mm-hmm. loolu moom na ci moom. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw. fa jaxate itam. toog na fa. mu ne cey sëriñ Tuuba moom day dafa doy waar de. da daa wax wax ci ndab li day daa wax. wala ndab li dana wax waaye dana dana wax itam ndax. Ah, Faati Koura mm-hmm. maami dan Mariama Daam mii mm-hmm. dafa bokkan ci ñi jël si dox yónneen ci noonu mm-hmm. nee mu jël li mu ko yónni ba di ko yóbbu nee mu dem ba ci yoon man day damaa war a wax sëñ bi ne ko dimbale ma ci lu ma sol xalaat ne man de damaa war a wax sëñ bi bu ma demee ne ko ma ci lu ma sol ba mu yàgg mu ne man naa ko ba nee naka ma nag mu egsi ba ne teg gi ci kanam ku kilifa gi ku tedd ki ne mu ne ku fatiku la li ñu doon bëgg a wax ndab li wax na ko daañu li ci dimbali